police euh, ils sont dañu dañu dañu dañu booloo parce que c'est pas évident mënuñu dugg ci li nga xamante mooy ci biir parce que quartier déjà c'est mal éclairé et que véritablement mënuñoo song donc ils sont obligés peut-être d'être euh, ci kaw artères yi pour véritablement bañ ndaw ñi euh, contenir dugg ci kaw ñëw ci kaw tali bi taal ay pneus donc c'est c'est stratégique aussi parce que c'est pas évident ka xam nga Grand Yoff nu mu déjà bindu bi dafa xaw a xat c'est un peu police mënul progresser ni mu waree et que véritablement donc euh, ndaw ñi ñu ci biir quartier te ñoom ñoo leen gën miin quartier bi donc c'est pas évident donc il faut beaucoup de prudence euh, beaucoup de tact euh, de la part des forces de l'ordre mais il faut wax rek parce que on a bonne douzaine de ñi ma gis véritablement ndaw ñi Grand Yoff xam nga ni c'est un quartier populaire hmm. et majoritairement composé de jeunes donc c'est pas évident pour que ñoom ñi ñi mën a xam bu Euh, les gens sont là les autorités viennent yéen a ngi gis li nga xamante ne mooy oto bi déjà c'est des autorités euh, policières yi nga xamante ni ñoom it en renfort pour un peu la situation bi nga xamante ni euh, am au niveau de Grand Yoff également qui commence à s'embraser un peu partout à travers les grandes artères parce que ñaari artères yi moo fi marché bi ak artère bi nga xamante mooy Yacine Thiandoum déjà ñaari yëpp ñi gaa ngi fii ak fële nga xamante Yoff euh, yëf yi mi ngi commencé takarnase euh, Mouhamed jërëjëf Alassane Balde nañu la bàyyi nga toppal ñu évolution euh, situation bi foofee à Grand Yoff ak tund yu ko wër voilà donc comme instant ko yéen ngi dégg léegi voilà donc les gars ngi sànni ah lacrymogène moom ah, ñu ngi ñu <laughs> donc ndaw ñi ñu ngi dañuy may gars yi un de répit et que véritablement rek euh, saa su ne euh, rek dooraat li nga xamante ni mooy ay grande parce que ndaw ñi ñu ngi ci biir koñ donc c'est dire que la nuit comme ni ma ko waxoon sànq dina guddi trop Mohamed parce que xam Grand Yoff moom nu mu bindoo c'est pas évident mais bon on essaie de voir on va essayer de voir on voir un peu la, le dispositif et l'ambiance mais pour le moment comme ni nga ko waxee sànq gisaguñu nag militaire. a que la police qui est là et qui veille au grain qui essaie de faire tant soit peu pour justement contenir les assauts des, jeunes. Mais pour le moment, Gisagouny militaire et on va essayer de bien. voir sur euh, cette histoire-là, Mohamed. Très bien. Merci Alassane. On te retrouve certainement euh, Chikanam pour nous savoir affaire bidina am évolution au niveau de Grand Yoff. En tout cas, yow min nga fa waye n'empêche que defal attention bu baax <laughs> voilà C'était donc à l'instant euh, en direct euh, Alassane Baldé du côté euh, de Grand Yoff alors ni ngeen ko gisee amoon nañu njort bu rafet ci ne affaire yi am na ak dal foofee du côté de Grand Yoff waaye actuellement ak info yu nu jot ak sunu ndaw ba ñu toogal foofee ca Grand Yoff gis nañu ne affaire bi mi ngi gën a dégénéré nit ñi wala sax jeunes yi ñu ngi gën di manifester par rapport ak li nga xam te moo di situation bi ñu dund depuis le début de la soirée dont sax ñu ngi ci jamono ji faut le ci couvre-feu ak ci état d'urgence waaye nag euh, euh, daanaka mi ngi jax bu baax a baax euh, ci Dakar ak tund yi ko wër alors ni ko Alassane xamle c'est vrai que ne gisaguñu en tout cas militaires yi wala l'armée en tant que en tant que tel ci gox boobu mu nekk comme ni ñu ko gisee justement à à ñaari tali jet wala tund yooyu waaye li Alassane wax mooy mooy il ne pense pas que ni de défense et de sécurité insécurité yi ñu gis euh, foofee ca Grand Yoff pour am euh, euh, un tout petit peu daal di dakkal manifestation bi foofee mën nañu contenir ndaw ñi donc loolu mooy info bi il faut que quand même kilifa yi bu baax a baax ñu gën a daal di mettre en place seen i ay dispositifs pour que fi nga xamante ni fu ci mel ni Grand Yoff foofee nga xamante ni du gaaw a donc wàññeeku lu jëm ci wàllug manifestation yi ñu mën fa andi ak li nga xamante ni moo di dal alors maa en direct également ak Safia Diatta mi ngeen war a àndal ci kanam ak seen émission gis-gis xëy na yéen a koy xaar Safia ñu ngi lay nuyu. Mohamed. Safia comment vas-tu? je vais gis nga situation bi un fekk ci plateau bi ñuy waajal émission gis-gis. voilà kon mu ngi noonu kon xam naa Safia ñu bàyyi leen nag euh, gis-gis yéen itam ngeen doxal ba ci kanam xëy na évolution bu amee ñu ànd ceeg yéen. d'accord waa plateau bi yëpp ñu ngi toog di xaar xam naa dinañ laal tuuti ci li nga xam ne mooy le euh, jeune Sénégal yi di nekk di def nii. Mm. Euh, mais après dinañ dugg ci thème bi nga xam ne moo ñu fi dajale. parfait à tout à l'heure merci à tout Mohamed suite. à tout de suite Sophia merci. à tout. Mm. retrouver euh, certainement euh, ci kanam euh, Safia Diatta dans l'émission Gis Gis. Alors Safia et sa team en place pour vous présenter justement l'émission Gis Gis ci li nga xam te ni moom moo soxal Euh, wàllug euh, situation bi daan ci wax dans un premier temps ak itam seen tam xam naa ne bëri ngeen ci ñiy xaar également l' émission gis-gis ce sera tout à l'heure euh, et sans faute avec Safia Diatta le temps que xëy na ñu dem jëli ji pour terminer laata ñuy am évolution ci yeneen gox Birahim Touré du côté peut-être xëy na jugee na Gédo wala ma nga fa en attendant en tout cas xam naa ne am na évolution su fekkee li nga xam te ni moo di Birahim jàppandi na moom itam. ñu euh, jëli ko foofee euh, ca fa mu nekk euh, tout en rappelant que li nekk ci li nga xam te moo di Sénégal ak Dakar ak tund mooy situation bi ñuy dund tey muy xeetu ay manifestations yu ñuy gis un peu partout à travers Dakar surtout Dakar et sa banlieue ci mel ni Grand Yoff Pikine fu ci mel ni HLM Grand Yoff ci mel ni Jet d'eau ñaari tali foofe yëpp gis ngeen ko en direct ak image yi ñu leen jébbal sànq muy en direct Euh, lu jëm ci euh, wàllu ko émeute yooyu alors Birame est en direct Birame Touré euh, ndax am na évolution par rapport ak situation bi foofee ca fa nga ne alors Birame actuellement est mi ngi foofee ca alors euh, waaw Mohamed Diop wax nga ko euh, hmm. ñu ngi fi actuellement ci euh, ci HLM. Hmm. alors difficile de te parler parce que lacrymogène yaa ngi sa biir bët yi ndax <laughs> gars yaa ngi sotti. di di di dóor gis nga fii nii ñu ngi ak ay lakk yoo xam ne ay pneu la ñu taal. mais vraiment axe HLM bi yëpp ba jëm ba ci biir boo ko xoolee avec la complicité de Babacar Mar di nga gis ni ba au fond. Euh, dañu taal fépp euh, daanaka ba jëm ba fi nga xam ne moom mooy Masalikul Jinaan de l'autre côté am na benn taxi boo xam ne dañ koy yàqate daanaka donte taaluñu ko euh, Babacar il va revenir sur ces images là waaye li wóor daal mooy nii gis nga ko fii nag wax bi jafe na da ngeen ñu koy xaw a jegal wax bi jafe na parce que dañoo naan lacrymogène ba ba xaw a doyal c'est assez compliqué mais en tout cas la situation elle est là Dakar ci boppam moo ñëw ba fii pour xool la situation di donc euh, on peut dire que euh, ce sont toutes les autorités en tout cas de Dakar les autorités policières euh, ak euh, euh, administratives ñoom ñoo génn tey ci guddi gi pour xool la situation dans Dakar donc fii daal HLM daal nii la demee actuellement kenn du dem kenn du dikk te taal nañ lépp mooy daal la situation mais nag difficile de vous parler parce que dañoo naan lacrymogène mënatuma xool sax fi ñu toll nii. alors Birame Touré su fekkee Birame mi ñuy dégg. voilà va maa ngi lay dégg bu baax. voilà voilà alors Birame est-ce que est-ce que am na présence. Euh, force de l'ordre yi est-ce ma fii xaw na jafe na. <laughs> est-ce que na présence force de l'ordre yi foofee au niveau des HLM. voilà voilà. Euh, Mohamed est-ce que tu m'entends. ma ma maa ngi lay dégg Birahim li ma bëgg a xam mooy est-ce que force de l'ordre yi takk der yi ñu ngi foofu au niveau des HLM. actuellement ne ah euh, ci HLM à hauteur de euh, fi nga xam ni moom mooy école bi nga xam ni ci buntu HLM ci jëm ci benn côté bi nga xam ni da ngay jëm ci kër Serigne Touba bi nekk ci biir mais axe bi yëpp ba jëm marché HLM gis nga ko policiers au loin le préfet de Dakar était tout à l'heure am na benn oto xam naa taxi bi dafa xaw a yéex a dugg fii euh, moom nag euh, dafa gaare na euh, daanaka ci diggu tali bi parce que dafa xaw a yàqu xam naa ni ñenn ci askanu HLM ñu ngi génn pour dégager la rue parce que dañ fi tegoon ay xeer yu xaw a yu xaw a rëy alors les autorités qui sont là on parlait tout à l'heure du préfet euh, je pense que c'est justement c'est le préfet qui est là le le le, le préfet de Dakar voilà alors xaaral ñu euh, dafa am ku muy jéem a xeetali ndax lacrymogène yee xaw a metti <laughs> ah, euh, ñu ngi ko doon wax sànq. mu koy jox ndox alors préfet on va on va l'approcher et il va parler. absolument si on peut l'avoir. waaw euh, beaucoup plus euh, monsieur préfet. oui donc euh, Birahim. Ah, waa ah, préfet may ñu deux secondes rek préfet. préfet Sen TV bi moo la moo la ñaan mi ngi noonu Birahim euh, qui essaie quand d'approcher euh, le sous-préfet actuellement euh, kilifa yëpp ñu ngi ci mbedd mi ah il faut le noter voilà Birahim jëm am préfet bi boo ko amee dina ci dina ci am solo ñoom itam ñu wax ñu naka la ñu jàngatee situation bile ak itam justement ay naka lañ ko naka la ñu mën a kon tëralee seen i ay dispositif ba un tout petit peu fexe daal ba ndaw ñi mën dakkal manifestation yi alors à l'instant même Birahim Touré la woon jëm foofee ca HLM gis ngeen ne également HLM taal nañ fay pneu am na ay lakk-lakk am na yenn ci ay oto yenn fa yàqati donc du coup booy xool féppay féppay féppay boy ah à travers Dakar et surtout ci biir réew mi gis nañu ne manifestation yi li ni mel nag euh, même sur la toile sur les réseaux sociaux on voit que ni euh, tout le monde se pose la question à savoir euh, lii lan la donc kenn xamul lan la en tout cas ñi nga xam te ñoo di autorité yi daañ ci jéem a andi ak tontu ci xam ndax bëgg-bëgg ndaw ñi ci daan daan ci tàbbi ñoom mooy fexe couvre-feu bi euh, ñuy dund jamono ji euh, te ñu bëgg wala sax ñu sàkku ñu daal di ko yëkkati euh, ñu mën ko yëkkati en en tout cas li ñu sunu ndaw yi ñuy wan ci Dakar et un peu partout situation bu doy waar la muy ay émeute Birame ni mu ko waxee nag xëy na naan na bu baax a baax ci lacrymogène yi moo tax quand même il a un peu du mal à s'exprimer donc ñu di ko wax mu gën a moytu rek parce que soxla nañu ko pour justement devant éventuelle réaction par rapport Gossas à Dakar et un peu euh, partout euh, euh, ci biir banlieue beeg ak biir réew mi alors Régis su fekkee baax na Birame Touré su fekkee ñëwaat na ñu ñu ñu dem jëli ko ñu xool ba xam ndax am na sous-préfet sous-préfet bi am déet donc en attendant Birame mi ngi noonu ñëwagul mu doon situation bu bu bu doy waar donc gis ngeen jóge na jet d'eau ñaari tali ah, ak tund yi ko wër tàbbi foofee ci HLM HLM également la fa xew rek moo xam